ziar naa waaw ñu ngi delloo ziar bu wér waaye waa Bawol. ñu ngi ci wàccaay. waaw waaw ñu si wàccaay dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. mais à quarante huit du combat. Mhm. dañuy gën a insister si mobilisation. waaw mobilisation nañuy gën a woote waaw. macha mais kàddu yi nga xamante ne am ratul na ko fi ban jàngal nga jàpp. non am bu weesoo bëgg Boy bu weesoo supporter am lu muy analyser du dem ak folklore mhm. lu mu lay wax rek téere la lu mu gëm la. te lu mu yëg la am Pikine moo ne si ci deret bi deret waaw deretu Pikine mooy daw si yaram bi mhm. waaw. mais boo gisee ay nit di def sortie di wax ci waa pikin wala ñuy wax ci seen mbër Boy Niang loolu la lay dañ koy umpale ñun ñu ko seetaan mu mbapat ñun ñu ko seetaan on est venu de loin Boy Niang dafa jóge fu sori ba agsi fii on on avec les moyens du bord kolo kolo wuñ ñu dañoo jaar fu métti supporter Boy Niang tamit doon lu métti. waaw bu làmbam bu làmbam desee ay weer lu ne ngay dégg mais moom focusul si loolu parce que am na mental de fer am na mental acier waaw mais adversaire bu mel nii mësa mësoo leen ko am. waaw ñu ngi doog a bëreeg roi des arènes loolu rek moo si moo ci différence bi mais boo ñëw mboppatam làmbam bëri na ak mbër bu nekk mbër bu xajam bu nekk. waaw te lu mu wane ci la mbapat wane gu ko sax si làmb waaw. mais ki ngeen yi bëreel duggoon Pikine yàggul war du gàtt loolu est am lu def ci waa waaw xam nga Boñang tontu na ko mais bëggutoon vexé naataangoom yi nekk Pikine nawleem yi mi Ama Baldé Eumeu Sène neewoon na ko bu jëkkee woon ci moom dootu duggaat fa lay yem. fa lay yem waaw. waaw mais mais dafa mel ni ku xaw a minimiser ki nga xamante ni mooy adversaire am Modou Lo. non wu ko. yaa il a nekk sur comme gàttal wax gàttal tànk mais mais lii moo gënoon tax nag. Mhm. mu bëggutoon bëggutoon wax wax ju bëri joo xam ne day mel ni comme làmb bi mu doon bëreeg Balla Gaye ñu naan boo ñangu wax ji kii nii bii nii ak ak ak ak Modou ni mu jogee nii si si kii si amaa bala mu préfère toog si rokom liggéey waaw te liggéey day wax. waaw kontaan nañ ci yow. ne raw kontaan naa seen sit bi Baol jàmm ci yéen. Aïcha Badou ki ñu toogal mooy lom bu Boy Niang borom njañ siyaar naa la. Ah, si loo a ah, waaw maa ngi nii rek maa ngi si jàmm bu baax. yéen a ngi ci wàccaay. Ah, ñu si wàccaay di waajal rek. jours si moyen un fu ngeen toll. waaw wóol leen seen mbër rek instant yii wóol leen seen mbër bu baax. instant moom bu dee entraînement am na ko. waaw bu dee lépp am na ko instant yii dañuy xaar le rek yàlla may ñu dem incha allah. mais waa a tiit jamono ji. waaw ah, loolu ah loolu ñoo a wax dañoo tiit. waaw dara yàggatul doomu dëggal beeg aana bi pare na de. waaw ah, bilaay. mais mais mais mais ki muy dajal ba muy dugg ci làmb Modou lañ ko doon wax. ñu dem banaan ko xarañ. waaw ah, ñu dem banaan ko xarañ loo. Mhm. Ah, waaw loolu tamit moo Lo moom champion la wax dëgg fa yàlla moom. Mhm. Modou Lo champion la gaynde la moom. Mhm. mais ba mu dalee bëri ba léegi mu ngi soog a ngi soog am combat nag. ma xamal ko loolu bilaay. combat bi ban combat la lay fàttali ci Modou Lo. combat bii ah. adversaire bi mel ni daa mel ni mooy loolu de. non Modou Lo du dara bilaay. Modou Lo. waaw hmm. Modou Lo booy weex moo ko doole ma wax daa ko bëri. boo gisee Modou Lo ak nga xamante ne ñoo koy indi ci làmb maara yi nga xamante ñoo koy dar lan lay def ci yow. waaw maa ngi dégg naa ay saatu waa ay yow ak dugg fii génn fii mais kii moto fa la mbaay ma daawal géwél moo ko yónni de. ne ko yox la jëli roi bi nee naa la kii mooy doomu dëggal beeg aana bi mhm. Serigne Ndeye Marie Baye Serigne Fall nee naa la boo ko bëggee da ngay noppalu boo ko bañee da ngay sonn laaj ma lu tax ndax yàlla pare ci moom seex na sa saatu abi jël lépp joxoo hmm? nee naa la kii boo ñaa yàllaa ko fal mu ànd ak dal ba too ci lal ko ko nar a laal ñun ñoo lay gàgga war a ko tal moo mën a bal te di ko jël tàng di xal hmm. waaye mënuloo am na problème de waaw nañ nekk di wax di lii booy kii dafa nekk xale boo xamante ni maanaam dafa fonk bis quoi. maanaam mhm. du yàq làmb. ndeysaan waaw ba pare nag moom seul mooy VIP boo xamante ni waaw dafa wàccee boppam quoi. Mhm. waaw bokk ak ñëpp waaw billaahi. mais gars yi ne leen ñemewul affronter Modou Lo di benn benn te benn benn te benn banal boobu si lay ay champion de te bu ñu ko mayal tamit day gën a metti moom rek moom bu bëgg moom mooy xool bu ko neexee làmb ji mën a gaaw bu ko neexee làmb ji mën a yéex mais at lu am boo ñaaw moo daan incha allah premier janvier mais mais confiance bi ngeen am ba ku wax ne Boy Niang moo koy daan la première. waaw lu ñu leen dee la wala lan la. non kenn ko a c'est que xam nga rek kii ñafe quoi dafa ñafe laay fam ba toll fii nii. Mhm. waaw bëgg a jël roi des arènes nag te roi des arènes moom boo ko bëggee jël moom waaw foog nga ñame entraînement ñame engagement ñame lépp te lépp lu mbër di am rek mu ngi si moom. a ñu koy ñaanal nag yàlla na ko yàlla defal ndam gu séddu gi waaw si barke sallallahu alayhi wa sallam Modou Lo dama koy sànni ñaar dama ko bëgg wax ni dina xam ne ku ñuy tete mi bette di mate dañu kewol kii kadaar mu ñëw dama tako te kenn du ko atte xarañ loo ñi lay ñaax ngir nga am lekk ñax ñoo xam ñaax amul yax ñu booñaa rek la ñuy topp billaahi soo bëggee dëgg-dëgg da koy am mu baxal moo dawal ko hmm? da hmm. kenn du ko atte xarañ loolu ñaax ngir nga bañ lekk ñax ñoo lu nga xam ñax amul yàq le premier janvier incha allah lépp dina leer yàlla nañu yàlla defal ndam nag gu seedu guy si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah kontaan nan ndongo daara kii kii kii kii ndongo daara daara la laa ko xamee woon mais dama ñëw tey fekk ko kër booy ñaa mu doon nu ma jaaxal ci loone maa ngi ni rek yaa ngi ci wàccaay gis nga pare nañ yaa ngi booy Boy <laughs> ñun boo ñaa bañ koy topp ñi lañ toll nii. ndeysaan billaa walaay. jamono jooju yaa ngi ci daara ja. <laughs> jamono bu ñu ñëwee vacances suñu kër maam fii. dam fekk sama benn magu papa dafa liggéey woon jamono fu mu dëkkoon fële. waaw léegi ñun sag bu doon sag bu daan bëree ñu mbapat nag dañ ko daan topp mais boobu ñooy nekk xale bu ndaw woon dem ba ba. Mhm. mais fii dañ daan yem buñ. combat bi fekkee ko. fekkee naa si tuuti rek mais. man nga de <laughs> mais bëriwul <laughs> mais sant yàlla. macha allah mais Modou Lo ñoo koy xamal ne. ñun pare nañ. bu jour daa dëggal boppam rek. boo Niang euh, dañ ko wóolu dañ ko wóolu am si moom kóolute. si benn côté xam lu tax. Hmm. dañoo dañoo gis dañoo toog gis ko muy contact ñu xam ne ñun champion la ñu am. dalal seen champion la ñu am. mais sa contact ak benn la. Modou Lo. mais suuf si importé la de. billaay wallaay taalaay tiit. waaye ko man làmb làmb Balla Gaye laa gënoon tiit. làmb Balla ji. Hmm. barki Seydina xam lu tax. Hmm. Balla Gaye ñu ko wër. gis nga xam ne Balla Gaye ki koy xëpp dernier guttu saa baay moo ko jàngal. Ah. barki Seydina oh, ma xam. Baye Ala Ndiaye. sam papa ko jàngal Fass Touré. Baye Ala borom Iwil Zador. billaay wallaay Aziz rakam. Baye Ndiaye Baye Ndiaye waaw Baye Ndiaye Baye Aada Ndiaye la man papa baay Aada Ndiaye laa koy wooye ndeysaan moom sama papa yi ñuy déggante ni téléphone sama sama xaritu papa la sama papa koy jàng alxuraan da dem naa ba këram géejowaay mhm. billaay wallaay taalaay mhm. maanaam combat boobu laa gënoon tiit kan làmb ji ndax lan moom fu dama fu mu daan dajeeg ma wala fu mu daan gis mu ne ma yéen xam nga kële kële kee dañ ko doon jàngal mais kii li muy def moo koy defal boppam Modou Lo mooy taril boppam du muy def moo koy defal boppam loolu est ce que gënta garaaw. mais booy ñaa jàngul. ñoom ma la jàngul de. waaw booy. <laughs> fii sa mënuloo mënuloo mënuloo benn aaya la fi tari gars yi nag mënuloo jàng na yow mi boo tari li ilaa fi ray sax ñu ne la jàng. macha <laughs> allah mais mais mais mës na génn ne tàllal loxo nga ñaanal ko wala da ngay jékki-jékki jàngal ko ay kaamil. bidoo yaa ngi fi bilaa walaay. nga koy nga koy jàng fii ñaanal ko. ndeysaan boo ñaar boo ñaar dama ko ñaanal ne ko da nekk roi des arènes te roi des bi mooy bii. nga ko wax ni day nekk roi. billaay wallaay taalaay fii laa xoon ne da ngay nekk roi des arènes bu mu daanee laa xoon fekk na jamono jooju combat moo ko euh, Modou Lo koy laam-laame nii. Mhm. ma ne ko da ngay nekk roi des arènes. ton euh, si kanamu père mu ne ma amin laamu laamu Modou Lo euh, Modou Lo ak Balla Modou Lo xam nga lu tax ma gën see tiit. maam Balla am ginnaaw. Mhm. Modou Lo am na ginnaaw am na lépp. Mhm. mais jamono ji <laughs> ba naka takk dara. man làmb ji daal dañ bàyyi ba le premier janvier ñu xam lépp dëgg la. macha allah Modou Lo day mbapat Modou Lo ñu day mbapat moo Boy Niang day xeex day mbapat day bagaar ba bagaar ba yóbbu ko parcelle fajee ko foofu ñu indiwaat koy saat bi. ñu dumawaat ko yóbbaat ko mu fajaat. xam nga dañu naan mosul dem ardo bii day dem ardo damaat damaat. day demaat demaat demaat demaat. demaat maa la wax lii. am na solo xam nga làmb làmb Modou mu Balla Gaye mm-hmm. damaa toog a sama benn xarit géej waale dëkk mm-hmm. cooy la tudd <laughs> dafa toog suñ classe mu ne yow lambu Balla Gaye Boy Niang bi mm-hmm. bu si demee maa lay jox quinze mille yàlla kii ku ko yebal bu si demee maa jox quinze mille mu ne ma lu tax lu tax ma lay jox quinze mille lu ardo du si dem ndax Balla du xeex Modou Lo bii day ñëw dëggal na dëggal boppam. yaa ngi wax Modou Lo di wax ba muus bi saw ñu. na dëggal na dëggal boppam ñoo xeex. dana jekk ndox di wàcc ci kaw. maa ngay may bi ay ay bi laa koy may. jaru ko nga déglu ma déglu ma déglu ma ñoo di ñoo di Oustaz bi Sa Touba xam naa ko bu baax Sa Touba déglu ma ci mbirum Sa Touba uh-huh. Sa Touba xamante nañ bu baax a baax. yaa ngi dugg ci garde ku pànk. Sa Touba xamante nañ bu baax a baax. lu ngeen xamante. <laughs> Sa Touba xam nañ xamante. <laughs> man ma xaw man fu la laay dafa fu la laay dem. te man déggoo ma de. Mawlo dem naa ba géej tuwaan pël fekk ko ma toog mu toog ma muy entraîné ma toog di ko xool kon saa Touba lu muy naan ñëw na fii eh, eh, Alsaan Djigo yéen lay nax yéen yéen lay nax saa Touba dafa sañ ñëw Pikine bi am na solo def ci code def ci code waaw tengin siyaar naa la. waaw champion maa ngi dina siyaar. waaw ñu ngi ci wàccaay ñun pare nañ pare nañ bu baax. moo du ngeen am de. waaw mais ñun <laughs> ñun ñun pare nañ bu yàgg Baye Fall bilaay walaay. pare ngeen ci ban côté. si côté yëpp Baye ci côté yëpp lañ pare. waaw ñun moom pare nañ fépp daal li waaj li waaj naan fàttali nañ turu yëpp. fàttali waaw fi mu nii moom man li ma bëgg mooy man li ma bëgg ci combat bi mooy. maanaam li ma bëgg li ma bëgg a Modou Lo ko mooy man dama bëgg a Modou Lo songu Boy mu songu Boy Niang waaw man Abdou man maa wax loolu. comme ni ko Balla defee woon. man damaa bëgg Modou Lo ñëw dox ci kaw Boy Niang man loolu laa bëgg. <laughs> man man maa wax loolu. mais bu dox ci kaw Boy Niang. waaw man dama bëgg loolu. loolu lan la ñuy gis. waaw non non non man maanaam làmb ji man loolu Modou Lo bu ma ko deflu lu ma lu ma bëgg quoi. Hmm. mu ñëw dox ci kaw Boy Niang man loolu laa li ma soxla rek laa bëgg li ma soxla laa wax. ak sama bëgg-bëgg ci ak sama yéene ci combat bi. mais imaginez Modou Lo bu daw na cirib tànki Boy Niang. oh cay <laughs> bëgg na mais loolu yàlla yàlla ko mënuloo def. Ah. barki sëñ Fallou. comme ni ko Balla defee woon. loolu laa bëgg. man dama bëgg Modou Lo mu daw dama bëgg Modou Lo daw jël Boy Niang ma loolu laa bëgg ci combat bi. xeex ak moom ma loolu laa bëgg. et puis bis bu ko defee boole ya ca parcelle. Ah. <laughs> dañ koy dëpp. boole ca parcelle. Ah. day dëpp. waxuma la Modou Lo mooy dëpp de. boo yaa ngi ca boppam reer yaag yëpp. 1 ba yow ba 7 ba 8 nga naa ma lan <laughs> ba 9 ba sax bu amee foofu. ñun kon kontaan nañ def ci code. ñun boo ñaar rek la ñuy topp. macha allah di ko ñaanal laf di ko ñaanal nag yàlla ko yàlla musal cat ak làmmin. man Abdou loolu rek laa koy ñaanal. ñun supporté nañ ko ngir mbër. Mhm. ñun sunu frère la. suñu lépp la. topp nañ ko ngir ay bëggee ngir mbër nii ne nii de mhm. kooku suñu frère la léegi. waaw dañ koy ñaanal jàmm di ko ñaanal fan u gudd ak wér sutura si nag maa ngi koy ñaanal le premier janvier lépp lu ko yàlla doon may ci sutura yàlla na ko yokk suur boobu noonu defal ko tawféex defal ko jàmm waaw ñëpp la yéene jàmm fii amul du ñëw di esaar waaw du champion la mais du ñëw di esaar mhm. dafa oyof mhm. bu làmb amul nii suñu biir lay nekk mbër du dem fenn waaw amul noo non non moom xamul yooyu moom <laughs> dafa tarle woon waaw dafa metti woon waaw kon kooku bu demee ba kii rek yaa ma gën a xam ni am lu muy sóoraale bég nañ bu baax a baax nag di ñaanal ñëpp jàmm di wax le premier janvier moom bu jeexee rek jeex na mu ngi noonu mu ngi noonu Badou bale gaa ngi nii de bëggee noonu la taw feex lépp jàmm yaa ngi am jàmm nice alhamdulilah sant yaa ngi pare ñun ñun kay bañ paree du tey bàyyi ki ngeen am dafa doy waar de waaw champion la moom bu muy dugg ci làmb ji Modou Lo lañ ko daan wax dem ba naan ko xarañ non champion la ñun ñëpp xam nañ ko. champion bu mag a mag a mag la. mës ngeen am adversaire bu mel ni Modou Lo. bof waaw kañ. mooy benn Balla Gaye. Ah. waaw am na am na am na potentialité yooyu noonu. Tapha Tine. donte donte gars yi moom lañ jox victoire. même mais combat boobu noonu man pour man ñun ñoo bëre lépp Tapha Tine. booy ñoo bëre lépp waaw. <laughs> mais mais lan mën a xaar ci Boy Niang contre Modou lépp nañ xaar lépp. gars yi ne leen Boy Niang <laughs> gars dañ ko xamul moo tax. nee nañ yi muy bëre moo arrangé ñun Boy Niang dañ ko xam bu baax a baax a baax. Boy Niang lu mu Boy lu mu bëre si Boy Niang lu mu bëre mbapat. lumu mu bëre mbapat. bëree gu ko sax arène. ñun dañ ko yàgg topp. Boy Niang lu mu bëre mbapat bëree gu ko arène. li mu bëre mbapat bëree gu ko arène mais muy daje koo xamante ni kenn dootu lam-laamee ak champion mu nekk roi des arènes euh, ba pare ngeen bëgg titre ci moom loolu est-ce que dina yomb ci Boy Niang non du yomb parce que lii nii dafa mel ni comme li gars yi naan xare la rek moo tax déggoo li Boy Niang wax si open presse bi mu ne ko sa bët di xonk nga yox yoxi ah. mun nga toog xaar ñu uh-huh. ñun danañ dem jëli lu ñu war a jëli uh-huh. bu ñu ko nangu jox ñu foqati ngeen foqati potu ndaal Hmm. mais parcelle nee nan da ngeen daan wax coppi fondé lañ yor ku ñëw ñu xel la nga naan dem hmm. mais bii fa dégg ñu coppi fondé da ngeen bëgg a foqati euh, porte ndaalu jàmm. non mais tamit mooy comme li comme li comme comme li Boy Niang wax rek nee na affaire yi porte ndaala loolu naanee ba ba doyal da nga jox sa morom mu naan. moo neen mandeegul. moo tax ñu ne dañuy foqati. mais nee na mandeegul dañuy foqati. ngeen ko bàyyi mu naan ba mandi. foqati <laughs> parce que xam la moo tax. moo tax dafa jot. incha allah yàlla nañu yàlla defal jàmm ba la première di ngeen gis euh, beneen façadu booy Niang bu bees beneen boo xamante ni yéen gisoo leen ko woon waaw. am solo kontaan waaw allah. ñoo ngi noonu Badou dégg wax ñoo noonu bëgg nañ ñëwal.